mbokk yi euh, ñoo ngi fii ci journée xasida bi euh, ci penku jumaa ji comme ni ko sëriñ bi digle woon ci euh, Baye Fall yi ñu taxaw ak seexu di sikarkat moo njëkk a sikar première heure sikar su neex macha allah soo am solo ndax sikar si noon lañ koy def bu ñuy roofoo buñ paree ñeneen ñu dugaat seexu lañ taxawal nag ñu bësee ne koo laaj keroog bi ñu yëgee ndigal li ak waa fédération ndakaaro bi ak fu mu mën a doon nan lañ taxawee ba teew fii tey rawatina euh, Pastef bi nga xam ne ànd moom ci ñaari bi yi jàll. waaw asalaamaaleykum maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp waaw lii de xanaa dañoo ñëw jëfe ndigalu sëriñ bi rek waaw ndax day loo xamante ni daara yi nekk Dakar yëpp ñoo mànkoo jiital ma damaa war nekk si bopp si kar si ñoom ñëw jëfe ndigalu bi waaw loolu képp la dañoo ñëw pour jëfe ndigalu sëriñ bi ci tur yàlla bi waaw loolu kese la. daaj bi nga sikar daaj bi ndax mën nga ñëw leeral tuuti ci daaj bi nga sikar waaw ñun de baay ji bi la ñuy faral déglu maanaam sikar si dañu dañuy boole ay bande baay ji bi yu bari sax xam naa ku tàmm déglu ay bande baay ji di nga xam ne dañuy boole ay bande baay ji bi ay ñett ba ñeent bande baay bi ci benn sikar waaw baay bi rek la ñuy déglu xam naa loolu moo tax mu yomb ñu waaw dañuy boole ay bande baay bi yu bari ci benn sikar waaw ndax dañoo tàmm déglu baay ji bi moo tax waaw. xam euh, sëñ Cheikhou fekkoo fi baay ji bi ci kaset yi nga topp di ko diglu tey boo dee sikar ñëpp danañ xam ne kii euh, Baye jib rek lay topp loolu nan nga ko nan nga nan parce bi nga xam ne ànd nga am moom ba sikar soo yëkkatee mu mel ne daa ji da ngay xam fi ñu koy yëkkatee xam fi ñuy wàccee xam fi ñuy euh, comme bëroo ni koy waxee. waaw xanaa yàgg déglu Baye Djibi rek ak ànd ak kuréel boo xamante ne tam muy waa ahlu zikur bi am suñu benn groupe boo xam ne daanaka dañuy répété sikar si waaw moom sëñ Cheikh Fall Baye Góor Seck ànd seeg ñu nag ñoom am Moussa Niang ñoom Serif Bey gars yi bëri kay daanaka dañu répété sikar si chaque jour dañuy dugal benn daaj gars yi na na ci ba miin ko ñu dugalaat beneen daaj ñu na ci na ci na ba miin ko noonu daal lañ ko jàppee moo tax xam naa mbiru yombuñu ak ndimbalu sëriñ bi tamit waaw moo tax xam naa mbiru yombuñu mu mel ne ñi ngay àndal euh, euh, am nañu cofeel ci yow rawatina euh, tur yàlla wi moo tax waaye ñooñu saa yoo leen wooyee saa yoo jug ñu ànd ak yow def mbooloo taxaw la ba waaw ñoom dañoo dañoo yàgg damay faral di wax gars yi ne leen ñun duñu ay sikarkat yënguwuñu ci sikar waaye dañoo dañoo tënku ci ay daayira ak fédération yu demee noonu ci lañ tënku maanaam ci génn yooyu lañu la ñu ànd ak ñoom waaye amul fenn foo xam dañ fay dem suñu demu bopp wala dañ fay teew suñu dem suñu teewu bopp saa ñuy yëngu rek dañuy yëngu ci yëngu daara la ñuy génnee wala ci fédération bi la génnee yu demee noonu te saa su ne gars yi la ñu àndal benn mbooloo la moo tox ñu miinante waaw ndaw ñi dañoo jug ngir dëgmal sikar lan nga leen di soññu en tant que koo xam ne euh, buñ ko tuddee tudd baay ji bi wala tudd lu bokk ci baay ji bi. ah jàpp rek xanaa sigar si moom sigar si moom kéemaan la moom man moom <laughs> am naa ndimbalu yàlla mi ngi ci moom waaw li may wax rek nañ jàpp rek téye ba waaw sigar si moom nañ jàpp rek téye li mag ñi baax doon wax naan lu ñu mën ci selal ko nañ ko selal waaw te jàpp moom daal xam naa ne amul morom si xeetu jaam yàlla yi waaw nañu nañu rek. luñ ci bëgg yëpp dina am incha allah barke Seera Fall